Euh, gis ñëpp gis nañ combat bi man mii bokkoon naa ci ñi nga xamante ni newoon naa diggante ma rëm bu deful ndànk dina bokk ci li koy yàqloo parce que rëm xale la boo xamante ni nii dafa gëm làmb xale la boo xamante ni saa buy ñëw la muy andi ak la mu andi woon bee paase du doon benn ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doo a wéyal waxtaan wi ñaa nuyu naa la. waaw maa lay ma sant yàlla julli sërante bi sant sama ñaari waajur. Mm-hmm. ñaanal sama paa fu mu tëdd yàlla xaare ko àjjana di nuyu borom daaru bu baax a baax a baax sama kilifa di nuyu képp kuy bàyyi daaru si yëpp maa ngi nuyu kàkk yëpp waaw di waa àdduna di di nuyu waa dëkk bi fi ma fekk nii waaw di waa kas sama gars si kaso bi yëpp maa ngi bëggee ñëpp daal eh, di nuyu ñëpp waat. Eh. tey de ma def laal débat deux nga laal débat deux. <laughs> non xool day gisee sama doomu ndey nga. esaay kay boobu mu a rey. Ah, taay nga da ngay taay nga mu benn combat bu nooy. non man kay bi ma joxee nooy. comme ni ko Mbaye di waxee lu nooy laa bëgg ma ci ko ba noppi ba doo ko xool yaa bu ndaw combat la. non bu ndaw maa man waxuma kii de ay bu ndaw yi. bu ndaw bu man ay bu ndaw maa man caatu bombay maa ko man fii sa liiru boo yooyu yëpp eh, bu ndaw sax man kay da nga jox da nga may jox waa ji dëkk fii mu tuddee sax. kala sama gannaaw bi Mathieu. Mathieu non. làmb la. njool reere ah. mais naka tàngaay bi. <laughs> tàngaay baa ngi ñu si kawam di maintien billaahi mooy loolu mais ñu gis nga jógee ci combat sa digganteeg rëm. Mhm. combat bi ñu ci bari néew nañu combat du choc la bu neex mais combat bi combat bi daal dafa yomb. non pourtant yombul de da seen liggéey rek. man ni ma ko foogee woon ni ma ko yaakaar woon ak bi ngeen ñëwee. Mhm. daanaka dafa am différence ba yaakaar naa di ngeen bëri combat bu neex bu metti mais combat bi dafa yomb. waaw combat bi soo gisee mu mu yomb xam rek ñun moom nekkuñu mbër boo xamante ni lu ñu bëree teere suba la ñu bëri waat dërëm dafa jàppoon ni man à tout moment mën moom moo tax loolu loolu la sóoroon quoi. dafa jàppoon ne ngay ñëw. waaw moom loolu la sóoroon dafa jàpp ni ñaar day ñëw ko rek waaw. làmb ji jeex làmb ji ma indi. am na leen lu may indi daal indi man sax làmb nit fa may xaar doo lan ngeen bëri yéen ñaar. waa dërëm dañoo bëri leeto suuf suñuy tànk ma xaar ko déglu ko. ñëwul ma taxaw rek déglu ko waaw ma tas yaakaar bëre bi dama doon xeex nag waaw mais samay kos ñoo ne ma bu xeex. da nga bëggoon a xeex ak. waaw mu daw leetoo ñëw si man ma bëggoon xeex ak moom. waaw dama bëggoon wane sama bopp bu baax li ma mën dëgg. parce que ñëpp nee nañ day daw rek songu. booy bi daal waaw loolu la mën waaw ñun ñun ñëpp mu ëmpale nag. dañ ma gën a ëmpale nag. yàlla baax na ñuy gën di dem dañ ma gën a xam bu baax léegi si loolu ñu leetoo daw mu daw jël ma ma xam ma ma génn ma arrière benn pas mu sol ma naax moom moom loolu forum la. Mm-hmm. daal may bal ma def rotation mu évolué sama poids jàkkaaroog moom waaw mu jàpp dóor dóor dóor ma jàpp ma wàcc ci suuf. kuy dal dal kay mais làmb affaire góor la. ma wàcc suuf ma koy plaqué mu ràcc bañ après mu jugaat ñu bërewaat xam nga mu dóor dóor dóor ma jàpp si ngëm li moom dëgër. ma daa koy tël. mais moment boobu la dóor lu tax que man fi ma jàpp baax na. fi ma jàpp baax na man a ah, dama ko xañ fooram parce que la fekk rëm moom bu la naaxee rek da lay daal. moom loolu foor waaw loolu fooram la waaw loolu loolu nit nga nangul mëninam quoi. Mhm. dama ko ko nangul mëninam. moo tax à chaque fois damay gis may sëgg muy dóor man fii ba suuf bu doon dóor dix coups du ma sa sigi si loolu noonu laa jaam samay ñaar loxo dugal si ngemb li ma koy tël ba tël ko ba si air bi ma génneewaat sama tànk muy plaque ma génneewaat tànk bu ma dugal benn tànk bi si biir daa koy loolu yëpp ci biir bëre bi waaw. trois temps laa ko def. ban mooy premier temps bi. premier si ngemb mm-hmm. ko xëcc. muy xalaat. kii daf may caxabal wala dugg bi xam nga loolu maanaam mbër bu mënul bëre wala mbër bu liggéeyul dëgg. Mm-hmm. ngay bëreeg mbër maanaam rëm bay bëreeg moom lépp sama benn tànk laa samp. gauche de pied bi koy daan. Mm-hmm. sama benn laa samp. sama benn tànk bi si des moom mi si air bi liggéey mu ko tël. dama dugg si axe bi. muy xalaat ma tal ko. mu mu yaakaar ma génnee tànk gauche bi. daa koy dugal tànk droite ci kaw air bi. parce que ren njool macha allah dafa mat mbër. léegi nag boo deful loolu. yow doo ko daan quoi. waaw looloo tax ma songale ko si kaw. ma yokk ko nga xamante ni maanaam du mën a du du mën a kiwaat appui quoi. du am appui doo doo am appui boo ko songalee noonu du daanu quoi. te mm. mbër saa yu song la rek li ngay génnee si kuufu suuf. koofu quoi mooy loolu yow mën na bëri. moo tax maanaam làmb daal boo ko jàngee rek comme man ay rëm yi man yow gisoo rëm ba ma ko daanee si bëriwuma. lu loolu. non non. parce que pourtant te pourtant ñu si béy dañ ne boobu sa làmb day bokkoon na ci boo ko daanee li ubbi sa làmb. waaw si si la bokkoon kay moo tax rëm ba ma ko daanee si bëriwuma defuma dara dama ko yëkkati na ko jugal bàyyi faal nga parce que fi ma sama bët moo ëpp loolu foofu. ñu ma war a bëreel maanaam yëpp pour daal leen ñoo ëpp loolu. ñoo ñaar fukki junni yoon du benn sax du benn. mais bi nga daaneeg léegi ñoo la gis yaa ngi nekk soo di entraîner. lan ma waral loolu. waaw loolu ko waral waaw gis nga rek nekk booy am ñu la jiiñ xam ma ñaaree entraîné ñëpp sas la nga ne si commune bi ñëpp bëgg la nekk ma bokk si booy yi xamante ni maanaam doon maanaam dama bokk euh, yow si ëllëg géej waaye quoi. su ma entraîné damay tooñ man bu ren ba ma ko daanee ba léegi noppalu ma maa ngi entraîné. xam naa sama combat sax li mu taxaw le sept août. si combat ñu Balla Gaye Gris bi spécial bi. da nga xaw am chance parce que da nga da nga da am chance su euh, di bëre ci bésu mag yoo xamante ni ñëpp dañ koy xaar. Euh, combat yoo xamante ni ñëpp dañ naan euh, bi mooy combat maanaam askanu làmb yëpp dañuy dem ci làmb jooju da am chance di bëre ci bésu mel noonu. Abdoulaye Ndiaye mooy sama papa rek xam nga duma teg si code duma tere yu bëri tam waa daf may tëral yu bëri del wax tuuti di liggéey lu bëri mbër bu ndaw su bëggee dem day wax tuuti soo bëree nga waaw nga nëbbatu lëlu waaw laqatu lu bëree bëree bëri liggéey lu bëri nga xamante ne sa combat rek da ngay indi changement xam nga ñëwoon nga fi. Mm-hmm. ba ma bëree kan bi sax nga fi ñëwoon ma R5 xuma. waaw. ma daan ko ma am lu la wax. Mm-hmm. ma jël bulon daan ko jërëm daan ko mais am na benn pataata bu ma woo daan fan yi pata pata boo bëgg daan pata nga wax. mais <laughs> yàlla baax na. ah pata boobu benn pata benn pata bu mu wóor benn ponkal mu wóor fan yii pour defal ko ah, bagage. baax na ci yow. waaw loolu laa bëgg damaa bëgg ñaar chaque jour rek di ñaar mënu génn si combat bi soo bëggee yéer ko fenn fii da daal ñenn ñi. mais lan moo la dugal lan moo lan moo la bëgg a dugal ci kooku parce que tamit bu ñu waxantee dëgg kooku combat day neex day métti day ambiance. lan moo la bëgg a dugal ci kooku. kooku nekkul bandi sax. Kara Dollé sax la def mel ni. waaw ñu ngi koy wax. gars yi ñu ngi koy wax ñu ngi siy wax mais mën naa am sotti mën naa am xaw ma man daal maa ngi tudd sama kilifa Abdoulaye Ndiaye. daa mel ni jot naa wala. naa la. allo. Kara nuyu la yaa ngi direct de maa ngi ñuy toog ak Niang Bou Ndaw. Ndaw de laa toog di wax di waxtaan ak moom fii. sa combat yaag moom daal laa dégg xaw ma nag la moo dugal ci Niang Bou Ndaw. mu mu na moo ngi nii ñoo ngi nii direct kay ñoo ngi nii toog di def émission direct ma woo nuyool nuyool waaw. mbër. jaar siyaare bàyyi si waaw may sant bu baax di mun ma moytu. ak entraînement yi. waaw maa liggéey bu baax yow maa ngi liggéey lu bëri doole. mais nag waxuma fi loolu nuyoo beeg jàmm sant dama cooy xam nga man. waaw. Ah? waaw. avant may waaw. dama ko mm-hmm. bul ko baab de. waaw bul ko baab. waaw baa waaw ñëwal ñëwal. waaw.

yaa ngi dégg. waaw. te wax dëgg yàlla gis bu ñu si lamb da koy jox li mu laaj. Hmm. waaye. yaa ngi dégg. yow kese laay déglu. day xam lekkam day xam lekkam. <laughs> mais nag am na lum la fi wax. man tuuti la wuy ma am na lum la fi wax. baa ko ba eggali. non defal ndànk. baa ko waaw baa ko eggali non déedéet defal ndànk rek. jàmmaarloo defe naa dama koy commencé. fii man tuuti la Kara. léegi nee na. nee na am na benn pota bu ñu koy wax benn pota nee am na benn pota bu ñu koy wax ma ne ko pota boobu dinaa ko woo. waaw waaw am na benn pota bu ñu koy wax te moom nag moom yéen sa classe bi da cee aay. lu wax mu ne yow ma cuuj na. waaw baax waaw maa lay dégg. yàlla moo waaw. bii tey bii yama maay. yaa ngi may dégg. sëñ maa lay dégg waxal waaw. waaye dama ne la yow yow yi nga dégg yi nga dégg ak yabuñu ma yow booy nga bëgg a jël semence loolu foo ko teg. sëñ bi man dama daal di jënd nga ne ma yow Pata yow su ma la jàppee ba def na bu du cuur làmb ju gaaw lay nekk du yàgg. làmb ju gaaw lay nekk. làmb ju gaaw lay nekk su ma diggante ma ne yow amul lenn mu la siy ñaan amul lenn mu la siy wax nii. waaw. man dama lay duma. yow yow yow boo ma duma Kara.

lu ma def ak yow ñun géewaa la juddoo fii gunaas ñun dem comme yow donc làmb du affaire ay milliers lii lii lii làmb biir géew la at bi sifflé di mën a yow kese. <laughs> yow yaa déglu démb xaj sa yow yow yow si jëm bopp loolu sa bopp nga koy wax sa bopp nga koy wax yow. waaye sëñ bi yow dimbali ñu nga xam ne yar moo ma yar. sëñ bi dimbali ma xaalis ma jël la. non bañ fay xaalis eh jël avance bi nga ne ma fay xaalis. Eh, maa ngi suppliqué la booy. jël avance bi waaw. maa ngi suppliqué la. damay tàngaloo sax instant bii nii. man du ma bëree juróom eh, du ma du ma tàngaloo jëlal géej gi jëlal oto nga jël géej man nga jël géej ñu tourné émission bi nga lay tàngaloo. du ma tàngaloo waaye sëñ bi. mooy ma wax la leen. maa lay dégg Kara sa yow laay déglu. waaw bu dee xaalis nga bëgg kay moom moom mooy loolu yow xaalis kese Fada nga. gerte kese nga. mooy wax. maa lay dégg. raxal nga nga may woon baa mu nga may waat loolu. si si. képp koo tollal génération barki Seydina Muhammad Rasulillah yaa ko mën. waaw. waaw. waaw. ñoo nekk di contact. si. seen combat yi neex ba mu taxawee ko kii gëmuma mu daan booy ko da ngaa mhm. si. waaw. parcelle ma ne la booy ma naa ma ne la yow mbër nga champion nga tax état bi ma gis mbër rek soo yor. waaw su ma la waxee loolu su ma la waxee loolu. waaw déglu ma déglu ma su ma la waxee loolu su ma la waxee loolu. waaw su ma la waxee loolu. damaa bëgg yow damaa bëgg bu la fi ay ay ni ma fay xaalis ak lii dama bëgg yow nga jëm avance ñu bëri man ak yow. yow nekk jàmbaar ma ne ma bëgg. nekk jàmbaar ma ne ma bëri yow nekk jàmbaar sa jàmbaar moo tax may bëri yow. waaw waaw. da ngay jël avance bi ñu neexal ko. waaw ba ngay pare na yow laa xaar. Kara man pare na yow laay déglu instant bi si ngeen dagg ndax man li ma mën waaw. su ma bëree juróomi juróom ba pare gees di bëriwaat ñaar dërëm. ah waaw loolu moom man moom ah, du sama liggéey man li sama liggéey mooy maanaam nee na ma diw ngay bëre ma xool ma xool ma xool la xool la nga nekk jàmbaar nekk bankat moo tax ma bëgg combat bi ma xam naa ma su ma daawee làmb dina ma nangul. waaw. li la ko wax loo sax Kara man min la eh xam naa la bu baax a baax sama ko ngay fréquenté xam naa la xam naa la xam say gain xam say moom mbëbës mbëbës sama mag yi ne si ñi moom sama mag yoo xamante moom miinu ñoo ma yore si suuf mais moom sibul xam na la bu baax Kara moo amul problème moo xam laa bëgg dañuy sama avance ñu bëri. kaa booy des deux mois rek moo des. kaa booy bi xam na la de. waaw yow moom ñëpp ko fi bàyyi ñëpp ko fi bàyyi moom. waaw combat am nag dafa jafe. ñëpp ko fi bàyyi moom ñëpp ko fi bàyyi waaw. barke Cheikh Ahmadou Bamba ñu baax na loolu dinañ ci waxaat dinaa la kanam. waaw waaw. du ma def lool du ma def loolu. waaw. waaw loolu de am na matu ko moom. waaw mais wuyu ma. dama wax ma wala wuy ma. waaw waaye yow sama grand nga sama lépp nga. waaw bëgg nag nga jël avance bi xam ma man ni nga nekk jàmbaar doon bañkat ma gis la làmb nu muy méttee muy taqee man xam naa ne su ma doon buñ bëree mais di nga nangu mu daan la sax nag yow. non moom moom eh day ñëw bëre kii day xeex kii day bëre si. day rayante si. Euh, waaw. kooku maa waaw. non match nul moom match nul lu si am ah, man moom gars yi man moom man damay libéré. <laughs> waaw. waaw. waaw. dëgg la. waaw du la daan sax nag. non sama grand nag sama grand la xoolal sama grand bu kuul lu wax nii nii lu wax ni nii. waa li ñu waaw waaw waaw day coupé day coupé. Ah, ma kaa jël ragalu ma waaw. waaw. ma xaar instant bi wala neex na ci moom la des. ma desul ci moom <laughs> <laughs> bés bu la bés bu la bés bu la seen waa koñ jayee ba nga dugg ci Kara Dollé. Kara Dollé man Abdoulaye Ndiaye ba ma njëkkee woon sa diggante yow Kara Dollé laa bëgg tegu ma si baat na avance bi ñëw moom laay xaar instant yii avance laay xaar. kon fi mu toll bu ñu la ko àndaloon. léegi ko fi bàyyi nekk ma fi comme booy di bëri ay yenn combat yii nii nii. man damay daan sama pamale sa rafet ba dem sama yoon. mais nag mais nag nee na boo ñu dugg da ngeen xool ci li ngeen dugg parce que bu leen nekk ci yoon ñu kii leen fi ñëpp bàyyi ko fi nga bëgg a dugg ci moom. xale nga ma waaye nga may Kara Dollé Kara Dollé man su ma ko muul daan man man su ma ko muul daan man man yow mën naa bàyyi bëre jawtul may nekk mbër. mais nag gis naa beneen combat bu neex boo xamante ni nii xam nga sa grand dafa jaay ñaari avance ñetti avance gis naa beneen combat bu neex. kan la <laughs> kan la Alboury BMP Ndiémi. ah am na promoteur bu ma woo léegi léegi déggoo su ma ko wax ma dem dafa dugg géej waaye daan njambaan. maa ngi pour làmb njambaan la wax ñaa ndaw. bu woon ak album woo nañ ma léegi léegi léegi léegi. déggoo su ma maa làmb. non dama ne ba xam ñeme njambaan du keneen ak keneen ñi mu daan du ñaa bu ndaw. xam nga géej waay am na ay bunt a ah, dafa am ay porte. Mhm. am ay fenêtre. loolu la demee nag. kon bis bu ñëwee si porte yi dina xam lépp dëgg la man làmb mooy sama métier man defuma man laay def. fi mu toll nag ma lay wax ay ay nga am ay wax Alboury. non Kara Dollé damaa xam ne combat bu neex la mais sa diggante ak Alboury itam lamb ko daal. daw ñu sama yaram booy yooyu noonu. man dama comédien mbër laa. ñooñu ñoo comédien dafa ndànk rek. comédien eh, man man man du ma comédien man champion laa mbër laa bëgg a nekk. Alboury comédien la. waaw loolu xaay eh, waaye bàyyi ma nga Alboury gis nga mbëri léegi ah gis nga mbëri léegi gis nga mbëri léegi ñoo yàq làmb mbër bu njëkk buur la woon mbër daan ñëw bëre ba pare ñu bëgg ko di ko wër di ko wax mais nekk si làmb ji di jooy def affaire yoo xamante ni man yooyu noonu ma leen sax quoi da ngay gis ñu lay xoolee ay bëtu dof man man loolu bëgguma ko quoi man dama bëgg ba boo nekkee booy nga gëm sa bopp ni yow ngay ñàkk moo lay may ni la yow dangaa war a nekk mbër nekk si làmb ji di jooy ak di defay affaire affaire mate di yooyu noonu man damay ñëw bëre daan dignement pour nekk champion dignement dama comédien. wool gars yi nag ne leen combat bi léegi mu taxaw. temps bi jeex na waaw maa ngi woo sama gars yi xam nga di woowaat dëkk bi yëpp waaw di woo sama waa koñ di nuyu sama patron Malick maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu waa Guèye waa Gunaas waaw di nuyu waa di nuyu waa borom bu baax a baax a baax a maa ngi nuyu ñëpp bu baax di gërëm ñëpp waaw. waaw sant yàlla daal ñaanal sama paa fu mu tëdd yàlla xare ko àjjana yow Kara Dollé laay waxal lekkal avance bi lekkal avance ñëpp la fi bàyyi su ma la tàncee xam lépp dëgg la. gis ngeen ni lay demee ci wasaare di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba jaajëf.